Quindi dire che questa era stata una cosa ordinaria, che voglio proprio farlo. Buongiorno alla classe.

Ojo, yaa ngi si góor. Yes, comme ça ñu ngi leen di comme ça am ngeen biir daa am ah biir daa am comportement yi ma leen bu seen gaale goo xam école la eh monsieur kon yaa ngi wax boy man su may wax da ngay noppi wala nga génn si biti mu am mu ànd ak mooy cinq boy su may wax da ngay ni noppi eh, mais comment ça fait ngeen nekk absent yéen chaque jour chaque jour yéen ay pesal gars yi texte bi yéen chaque jour. yaa a da eh non ya, noppi waxuma eh

jàng bu di séré après ngeen am seen bal ngeen dimbali seen parent ñu gën ngeen nekk ak wol xam di suté yépp ñu leen wax bool leen ba ngay yes mu c'est que la xam ngeen samay gaay yi ne xam nga la bëss wala sama ndig la wuy ma loolu loolu sama ndig sama gaay soñté parole quoi bo bëggé ma génné ay comprendre man ni samay gaay yi waaye ko bëgg né né mu jaay ak ak boy ak gaay yi sama ko ko ko ko ko ko ko absent. waaw ngeen di ñëw pour everyday après ngeen di def seen. ngeen am seen bopp. da ngeen doon da ngeen doon. da ngeen doon da ngeen doon. oui ma eh da ngeen doon toog. da ngeen dee da ngeen noppi. eh dama bëgg ngeen noppi. damay pàcc seen affaire bi la. Fama. président. Fama eh. ne eh, nekkoo seen kër yaa ngi classe. quel comportement Moussa Moussa toi aussi sois responsable hum suñu sa biir Mohamed. élève bu sérieux yéen lay mel. Ami. Boise. maanaam monsieur. sa biir biir. monsieur Seydar. waaw Zara. ka? Mia. Mami. Deux cent deux balles laa la jox yéen defoo leen dara lu baax. ah deux balles boo xam ne cinq élèves ñoo mooy. Kajian sono. Yo jamur ada ya? Kamu ada jamur. Dua setengah. Bisa dibangun lagi. Pojok. Kalau beda sudah berdua, tahu sini ya. Itu berdua ya. Dua setengah. Wah. Sama.

살려서는요. Let's do. Bang, kenapa tentang belum

아, 우리가 하는 일에 대해 우리가 하는 일에 대해